actualité parce que kuy traité actualité la chaque jour euh, mi ngi koy tenir en haleine euh, téléspectateurs yi ci actualité yi fi xew ñu waxtaan ak moom nag génn si comédie bi waxtaan ak moom mu am ay avion parce que lu am solo chaque fois la ñuy wax ma bàyyi ko mu nuyoog internet yi. waaw euh, soo Aïda maa ngi nuyu internet internet yëpp di leen ñaanal kenn lu jàmm bu dee ngoon si nañ ko seetaan ku yeew suba si seetaan ko ma lay ñaanal bonne journée de toute façon mooy xam naa ne nag cette fois ci da a ñëw trop. parce que yàkkamti naa woon nga teel a ñëw mën a ñu mën a wax lu am solo mais dañ koy dabu ci biir émission bi ci biir waxtaan bi euh, déclaration bu am solo dana ci boo xam ne euh, yaakaar na c'est pas trop tard pour ñu annoncé ko ndax l'essentiel daal ci biir waxtaan bi euh, dana ci am pàq boo xam ne wax dëgg yàlla danañ ci juux lu sori pour gën a mën a yaatal suñu waxtaan. incha allah fu ñu njëkk a commencé mooy prix parce que 2021 dafa mel ni ak 2022 yow yow prix yi moom da nga ko dajale. amoon bu amoon polémique après nga ñëw wane prix bi ak yooyu noonu yëpp euh, nga expliquer ñu un rek. waaw xam nga prix bi bi bi ci mujj indi coow moom mooy bu Burkina Faso bi nga xam ne dañ ko weddi woon tuumaal ne Ali euh, Abou Bilal demul Burkina kon prix boobu amu ko euh, mu nekkoon prix meilleur artiste humoriste africain boo xam ne dañ ko basé à ci. Euh, ci YouTube bi ñu xool li nga xam ne moom la Kouthia di liggéey du lundi au vendredi ñu xool euh, euh, dans les pays francophones yi nga xam ne ay dañuy def comédie ci Afrique amul benn comédien bu ci am audience boo xam ne am nga lundi mardi mercredi jeudi vendredi ñoom ils ont vu que ne vraiment c'est quelqu'un qui est très régulier moo tax ñu def ko meilleur humoriste africain parce que xëy na je parle wolof wolof laay wax waaye li ci ëpp tamit dinaa def français ba ñoom ñu comprendre ko moo taxoon prix boobu daa day taxaw donc bi loolu amee tamit am na beneen prix boo xam ne dialogue islamo-chrétien indi nañu ko teg ko sama loxo pour féddile sama kóllëre ak ñoom ndax nee nañu saa yi may sama émission fu ma tuddee yonte yàlla Yeesu Christ fu ma tuddee Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tudd naa yonte yàlla Yeesu Christ borom xel mu sell loolu mooy wane euh, euh, boo xam ne am na musulman am na chrétien nangul ko chrétien yi ci ziar bi yi nga xam ne ñoo nekk ci collectif Hadj Mansour Mbaye boobu ñu jox ma ko kon wax dëgg yàlla euh, dama naan euh, prix yi daal dafa teglonte par ordre d'arrivée mu nekk yëpp ay mbégte. mu nekk yëpp ay mbégte say fans euh, am ci contentement ku caa nekk benn comédien boo xam ne Sénégal mën naa wax kenn bañu ko sa émission dara bu xewee ñëpp dañuy yàkkamti sa émission jot pour ñu seetaan ko xool na nga ko koy interpréter lan nga gisee sénégalais yi chaque jour dañ lay meilleur comédien Euh, nan nga gisee appréciation sénégalais ci yow. waaw parce que sénégalais yi kenn mënu leen nax bu fekkee ne yow da nekk ci routine bi yàgg ci lool dem ba am expérience bu dara xewee ñëpp ne suba incha allah nañu xaari ku koj ku caa la koy traité te bu ñu ñëwee xaar la fa du ñu am déception parce que fa ngay génnee dafay nekk toujours foo xam ne dafay mel ne que ñoom dañ doon dund affaire bi en direct ndax dañuy mettre les personnages ba nga xam ne day nuroog personnage euh, bi ñuy bi ñuy imité dañ ciy def tout du ñu bàyyi benn détail ba nga xam ne yow mi koy setaan da nga naan est-ce que sax kii nekkul ci Euh, biir nit ki pour xam ak ci biir xelu nit ki pour xam kii ay réaction loolu nag euh, moom mooy euh, comédien humoriste boo xam ne dafay def actualité parce que ñun duñu ay léeboon lippoon amoon na fi daanaan benn paaloon déedéet ñun dañuy topp actualité daal di koy dugg def ko ba nga xam ne ki koy seetaan day mel ni kuy seetaan journal télévisé Kouthia Show journal boo xam ne Euh, institutionnel la kon ni ngay koje journal télévisé RTS ak bu TFM ak bu Sen TV noonu la gars yi di xaaree Kouthia Show version humour en information muy jox actualité boo xam ne ki jàngul te bëgg xam ci a la koy xamee te boo seetaanee Kouthia Show journal am après da nga naan lii dafa mel ne am na fu ma ko déggoon fekk yow Kouthia nga seetaan mu tegal la actualité bi loolu mooy suñu secret mooy topp information du jour au lendemain mën a nekk au quotidien constant parce que l'information est constante et alors Kouthia ñu gis ko bu toppandoowee Macky Sall réussir ko maître et la Diouf loolu la ñuy gën a reetaan ah, Madické Niang yëpp nga toppandoo ko ñii ñi dañ koy bëgg mais mais dafa mel ni année bii da nga gën Afrique na ay Doumbouya dañ koy gis dañuy gis ay Alpha Condé yooyu émission yooyu am audience mu mel ni Kouthia léegi yamatu Sénégal en Afrique wala dans le monde ñu ngi koy suivre. waa parce que dama demoon euh, ci benn euh, festival bu tudd Awat euh, les Aras du Rire Awat africain. bi ma fa demee euh, ñu projeté sama benn euh, euh, Kouthia Show boo xam ne moo nekkoon coup d'état wu Guinée bi te mu amoon euh, réaction bu président Macky Sall bi ñu ko koy annoncé ñoom euh, les Africains ont aimé parce que nee nañu même bu ma waxul sax euh, le geste bi rek ak boo xoolee rek da ngay comprendre que kii c' est le président Macky Sall qu'on annonce que ne coup d' état am na à ci demee donc les Africains yi ma fa fekk ay comédiens yoo xam ne dégguñu olof nee daal ñoom dañu may suivre mais problème difficulté bi ñu am mooy du ñu comprendre man la laay wax parce que olof laay wax damay lâché donc j'ai vu que maintenant Euh, Sénégal moom convaincre naa leen ba gis naa ne wax dëgg yàlla bëgg nañ ma li war na moom moo de par étape commencé dugg Afrique ci sous région bi parce que am na ay comédiens yoo xam ne dañ koy xool ci YouTube bi am na ñoo xam ne sénégalais yi nekk à l'extérieur dañ ak ay compatriotes xam ne ci dëkk boobu ñoom dañoo sonn ci traduction ba nga xam ne léegi euh, euh, gars yi dañuy dañuy dañ leen bàyyi ñoom ñu seetaanal seen bopp pour mën a comprendre am na ñoo xam ne sax gestes yi nañu comprendre mais bi ma commencé nag di dugg ci répertoire Afrique di làkk français di di ko g gis naa ne am na lu bëri lu ma indil ci côté apport euh, ci ay fans ci apport ci apport ci performance li nga xam ne moom laay liggéey. ci visibilité boobu noonu français bi ak nit ñi dañuy wax seen bu déggoon anglais bu déggoon yeneen làkk yi kon kenn mënu koo dans le monde parce que muy def mën na ko euh, est-ce que tamit Kouthia Show at yu muy dem bëri ñaata ñun def nañu Kouthia rek def na boo xoolee si sama carrière artistique mais si. ci émission bi rek def na émission bi ak télé bi ñoo maase. waaw mais ma nga ko émission bi ak télé bi ñoo maase fii. Mhm. waaye ñu ngi ko déparé ci Walfadjri boo ko boolee at yi ma def Walfadjri ak yi ma def TFM presque def naa presque vingt ans de carrière yoo xam ne ci télévision euh, version euh, animation euh, humour en version informatique. Mhm. nan nga gisee loolu ñu naan Kouthia mais ci nañu jëm parce que tôt ou tard dañuy dem euh, dugg ci loolu ñu ngi commencé di def ay cours en anglais di jàng di tapa tapal fii te euh, xam nga anglais dafa li tax mu neex mooy amul faute euh, xëy na français nga def sujet verbe complément mais anglais bu la neexee nga jëkkee complément teg ci sujet teg ci verbe l'essentiel que mooy ñu ngi améliorer nank-nank suñu répertoire parce que ñun ñu ngi soog a commencé suñu carrière man 2022 bi laay soog a commencé sama carrière ah waaw waaw 2022 laay soog en français et en anglais te incha allah dootul yàgg rek dinañu gis ci taax yi nga xam ne anglais lañuy dégg ñu ngi gis ñu def ay show en anglais garde l'humour bi nga xam ne moom la ñu am africaine bi daal di koy transmettre américain yi en anglais ba pare téye contenu bi mu nekk humour boo xam ne même bu fekkee ne euh, da nga nekk anglais day saf sàpp kon ni nga koy diggee ci olof mu saf sàpp. Mhm. mais pourquoi émission am sous am kuy koo xam ne da koy bind comme ça nit ñi dañuy comprendre exactement li ngay wax. waaw loolu xam nga xam nga loolu normalement télévision TFM moo ko waroon jël en charge mhm. parce que Kouthia est un employé de la euh, du groupe Futurs Médias donc am na koo xam ne kii gérer moo waroon ñëw gérer loolu mhm. phrase bu nekk mu daal di koy teg. même bu fekkee dafay jàll ba pare mu daal di koy traduire euh, war nañ ko mën a def loolu c'est une euh, suggestion boo xam ne j'en tiens compte pour désormais que ñi nga xam ne comprendre ñu ngalawaay euh, waa TFM nañu am desk boo xam ne traduction dañ koy def pour nit ñi mën a comprendre œuvre Kouthia yi même bu dul sama émission sax des autres émissions yoo xam ne dafay intéressant ñu jël ko sous-titrage en français et en anglais pour ñu mën a am accès ñoom tamit euh, visiter dans tous les pays du monde yi nga xam ne dégguñu olof ñu mën a mhm. am ne lii seen programme kat problème bilingue la wax am na français am na wolof am na anglais. comme émission bi dañ koy enregistré loolu defe naa du leen jafe. waaw <laughs> alors ñu ñu ñu bu ñu duggee ca carrière xam nañu li nga def Sénégal yëpp ak euh, actualité bi ni ñu koy traité ba tey Kouthia mënuñu ko génnee ci 18h 18h moom la ñuy déglu ak yooyu noonu moom la ñuy seetaan du moins samedi bi moom la ñuy déglu RFM mais tey actualité yi nan nga gisee actualité maintenant Sénégal lu mu toll nii nan ngay nan nan nga ko gisee exactement en tant que yow euh, citoyen sénégalais. bon actuellement nii temps réel bi mooy. Mm. Euh, boo xoolee tuuti rek euh, groupe de presse yi il faut ñu gën a valoriser journaliste yi nekk presse presse écrite bi parce que presse en ligne bi mu ngi au-dessus du presse écrite bi parce que yow da ngay da nekk le soir boo nekkee le soir journaliste boo xam ne comme l'observateur nga nekk wala le témoin yaa ngi quitté sa kër ay 16 heures pour mën a dem rédaction ngeen xool li war a xew kenn ku nekk reportage ngeen boucler seen journal une heure du matin war ko génne le lendemain mais diggante bi ngay boucler la war a génn lendemain boo duggee ci net bi jot information boo xam ne yow boo xëyee ba matul doo jaay mm-hmm. donc presse en ligne bi moo gën a rapide Euh, que presse euh, bi nga xam ne moom la ñuy exposé muy jaay euh, waa kii journaux journaux yi donc il faut gars yi gën a des fois nag gars yi dañuy concurrence bopp parce que mënoo am presse en ligne ba pare am presse bi bëgg a bëgg bëgg concurrence sa bopp ci benn groupe dafay doy waar boo xoolee fii am nañ L'Obs am nañ IGFM DFM IGFM génn loo xam ne L'Obs génn gu ko toujours day am retard déclic boobu nag li koy mën a soigner mooy ñu fexe ba booster yaa ngi dégg xale yi nga xam ne ay ay journaliste nañu gaaw leen a former teel leen a dugal euh, concurrencer presse en ligne bi dana metti nag mm. mais actualité bi actuellement ni tout le monde est Euh, au diapason de lactualité actualité du seconde ak minute bu nekk nit ñi xam nañ lu xew parce que télé mbedd yi nga xam ne moom mooy sa téléphone bi nga yor sa poche bokkul bu nga génnee sa kër balaa ngi dugaat sa kër guddi seetaan information na ah kon lii tey la amoon léegi fi nga toog Sandaga wala fi nga toog ci xurum bukki wara xuuru naar wala ci Dakar tam dikki ba yaa ngi toog am information boo xam ne tey bu dul woon presse en ligne le lendemain nga ko jot mais yaa ngi ko jot dès l'instant mooy wane que information daal léegi dafa am doole waaye nag doole gi mu am nag ña ko war a dooleel est-ce que am nañ maturité boobu yor ko. Mm-hmm. d'accord alors si si élection yi nag bi ñu génn locale yi euh, nan nga ko gisee résultat yeeg <coughs> euh, am na ñu bëri am nañu ay ay surprise si élection yeeg yooyu noonu nan nga gisee déjà sa lecture ci élection yi. waaw sama xalaat ci élection yi daal mooy vraiment gis naa ne euh, APR moom ñu bëgg ko ak ñu bañ ko ñoom dañoo lajj dañoo lañ parce que lu tax ñu lanc ci élection yi mooy dañu waroon ànd ñoom seen titre contraire bi def bennoo bokk yaakaar waaye dañoo ñaaroo tas yaakaar parce que ñaari liste ñoo amoon listu bennoo ak listu parallèle te ñoom ñëpp bennoo lañ bokk waaw kon kay bennoo boobu nekkatul bennoo léegi nag ñee nga xam ne dañoo ànd ak Pastef ñee nga xam ne dañoo bokk ci benn kuréel boo xam ne yeewi Sénégal ñoom ñëpp ñu ay leader ñun ñëpp nekk kenn ku nekk di opté pour ëllëg nga doon président de la République ñu boo boole sa lépp tënk ko loolu mooy wane ne booloo mooy doole. parce que gisoo yeewi parallèle amul de <laughs> benn yeewi nga gis yeewi parallèle boo amoon kon yaakaar naa ne xëy na bennoo dina mën a gañe mais fu mu ne nii. yàlla da leen won ne booloo mooy doole parce que yàlla nee na julli yëpp julli àjjuma dajale bi ngeen di dajaloo boobu laay gën a nangu ko ngeen julli kenn ku nekk parallèlement <laughs> yaa mi dégg kee julli fee kee julli fee boo leen dajaloo julli nag ñaan googu dama koy nangu ndax am na kenn koo xam ne mu ngi ci mbooloo bi su ma ñaanee damay nangu te bu ñaanee pour mbooloo boobu li mu fi ñaan day am waa bennoo li leen war mooy dabbu ci législative yi fexe ba seen ñaaroo yooyu ñu daf ko bennoo te góob ma ne loolu dina gaaw ndax fi juróom benn weer xol yi balaa muy kiif ñetti weer ndax am na ñoo xam ba tey mu ñoo nangu ne gagné nañ leen. mais est-ce que du stratégie tamit président Macky pour. Euh, non góomu ko non non góomu ko du. stratégie parce que moom liste yi am na yoo xam ne d'accord na ko comme Kolda bi moom. waaw mais kon kon nag kon nag kon kon moom président Macky Sall maa ngi koy wax mu changé turu benn. def ko ñaaroo waaw ñaaroo bokk yaakaar ñaaroo bokk yaakaar. ñaaro bokk yaakaar parce que mënoo nekk bennoo ba pare nga nga nga cautionné fii fee ko cautionné te ña nga cautionné am na ñoo xam ne da ngeen àndaloon ci parallèle dañ leen dóor du parce que ñu def parallèle yëpp ñoo gagné am na ñu parallèle ñu dóor leen kon donc booloo mooy doole donc bu séparé rek te waroon boole moom ci boppam euh, chute bu amee moom lañ koy moom lañ koy wax. moom ñeneen 80 pour cent élection yi ñoom ñoo ko remporté. waa ñeneen ñi xamul lu tax ñu remporté mais boo xoolee sax liste parallèle yi ak bennoo boo boolee seen ay point ñu jàkkaarloog un candidat yeewi ñoo ko ëpp doole mais séparation boobu mooy tax nag waa génn. ndax foofu ñee dañoo booloo te ñee dañoo séparé wu il faut que président Macky Sall nangu ne à Dakar am na foo xam ne moo fa waroon gagné te da ko perte loolu il faut nga nangu ko dans un premier temps parce que yàlla bu la mayee lii nga nga nga nga nga nangu ko bu la xañee dara loolu mu la xañ tamit da nga ci war a sant yàlla defaruwaat d'accord gagné nañu mais après leen manqué mooy communication. Mhm. waaw ñoom tey li waa yeewi amoon tey ñoom bu ñu ko amoon tey kon réew mi kenn du dégg. waaye Yewwi amuñu li waa Benno am de waa Benno ñoo gagné partout parce que boo xoolee mais seen communication ci gagné bi sax feeñul ndax dañ jël yëpp concentré ko ci Dakar ñoom dañoo bàyyi seen xel yëpp ci Dakar te wax dëgg yàlla euh, dakaar euh, li fi jot a am ni wax dëgg yàlla man li ma ci gis daal moom mooy ñoom il faut ñu def defaraat bu baax te waaye yeewu Yewwi tamit def attention attention au conseil conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci yenn mairie de parce que conseil municipal amul salaire te bu waa fekkee waa bennoo dañoo yor xaalis mën nañoo dem ba jënd ay conseil yoo xam ne yow maire ba da ngay nekk xot buy taxaw rek loo teg ñu dëpp ko délégation spéciale dañu lay indil nga daal dafay tëb fii nag ay quelques mois di nga gis ay maire yoo xam ne ay délégation spéciale ñoo la fay remplacer ba nga la wax li bindu ko ah waaw bind ko di nga gis ay maire yu ponkal yoo dégg yoo xam ne gagné nañ seen gox di jible waaye fii ak mois délégation spéciale ñëw parce que lu ñu teg conseil dëpp ko te bu yàggee nag wax dëgg yàlla day bloqué procédure euh, développement wu. dina jëmale kanam gagné ba pare loolu loolu. ah mais politique la rek xeexante la parce que am ñoo xam ne mënuñu digérer ba tey seen i défaite te di lay bloqué. comme fan nga ko gën a yaakaar. li ma ko gën a yaakaar maa ngi koy xeeñtu ci côté Géejawaay. Ahmed Aïdara maa ngi koy xeeñtu foofu xëy na Dakar sax dina xaw a kii mais bu fekkee ne Ahmed ni mu amee. ay conseillers Benno ak conseillers yi nga xam ñoo nekk wàqe naa nag ñoom directeur euh, RTS bi ñoo ñëpp dañoo ànd manko ñoo ëpp Ahmed Aïdara ay conseil donc lu Ahmed teg mën nañ ko dëpp ay conseil Ahmed kay li ko war moom mooy fexe bay naxantee di foo di di ree ba nekk ñëpp jàmm xëy waaye bu fekkee doole rek la mais gëmatuma ne Sénégalais bi léegi conscience mën nañ ko jënd ci moom mhm. parce que am na ñoo xam ne way boobu ñu wax waaye réew mee génn leen mhm. seetaan bu ñu génnee seetaan ba ñuy wote wotaluñu ko dañoo seet keneen ku la neex woteel ko lekk sa xaalis yow dem ànd ak ki ñu bëgg. Mhm. loolu lu bëri daf leen daf leen neex nag. waaw achat a conscience boobu waaw dañoo lekk xaalis ba pare dem voté. waaw waaw leen neex waaw parce que tamit dëkk bi amul xaalis soo ko jëlul da nga koy ñàkk te ki ngay jàppale mënu la ko jox. Mhm. <laughs> imagine la Jamil Sané d'après les rumeurs gi ma dégg locataire la woon am na ñoo xam ne fii ay ay benn candidat yeewi mille francs 1 million la ko gars yi jox waa mais ay jeunes ñoo dajale presque lu mot un million quatre cent tegal ko ci pour mun a def campagne am te am na yoo xam ne deful caravane deful dara. Mm-hmm. kooku dafa mujj gagné fii ci mairie bii nga xam ne mooy mairie euh, Zahra Iyane Thiam bi. bi nga xam ne Zahra Iyane Thiam ki ko daan amuloon sax deux millions de budget te Zahra li am ci budget ay presque trente millions jëm kaw mais il n'a pas elle n'a pas gagné. Souleymane Camara. waaw la. Mm-hmm. waaw jeunes yi mais en fin de compte tu vois que ne l' boobu nga xam ne moom la gars yi doon joxe dañoo mujj perte gars yi dañ ko lekk ba pare dem voter Souleymane Camara. Mm-hmm. am nga si surprise élection yi. bu mag am naa ci surprise bu mag parce que am na lu ma foogul woon dama ko ci gis dama foogoon ne ba tey sénégalais yi conscient wuñu dañuy nangu jënd ñu ko leen jënd achat de conscience mais dañoo bañ dañoo bañ nag il faut gars yi di yeewu ñi ngay gis du ñoo ñoo lay voter parce que ñooñu du ñooñu am na ñoo xam ne dañoo toog dañuy liggéey am nañ leen lu ñu tal mais si sa discours dañuy xool ak sa comportement ak ka fa nekk gis nga ñi gagné ñëpp proximité moo leen ko may. ñi gagné ñëpp proximité moo leen ko may duggante population yi xamante population yi moo leen may tey li ñu am nii. mais ñi nga xam ne dañ fi nekk bàyyi ba mu jeex ngay dem di saaf gerte wala di saaf diwtiir wala ngay dem def leen nit ñi dañ lay mujj sax en fin mere. dañ lay mujj mere donc achat de conscience boobu nga xam ne moom la sénégalais yi doon dund lu yàgg nañ ko léegi. parce que léegi ay xale fi nekk yoo xam ne mun nañ muñ bu njëkk ba mag ñi dañ doon seet sutura jamonoy PS bu njëkk ba nga xam ne ñoom Adja Aram Dieng fi nekkoon ah euh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, mag mag ñu baax ñi nga xam ne dañ doon jàppale nit ndax kersa ak sutura boo leen joxee dara ñu jël boo leen ñu seen kàddu moo tax ñu sàmm ko mais xale yi nii xëy bu ngeen jox xaalis dañuy moo nañ ba pare dem xool ku la neex ñu fatal ko. kan mooy le grand perdant. lii yëpp APR mooy perdant bi. mais ban candidat moo gën bi nga xalaat ne moom ah <laughs> wax dëgg yàlla xam nga man moom dama doon toog ay oto di ma romb ay karawaan yoo xam ne dama naan nii moom fan nañu jógee ci àdduna bi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla man ki ci gën a perte daal man damay wax dëgg raay mooy Diouf saar parce que gañewoo sa koñ gañewoo sa ville ñàkk sa koñ ñàkk ville ba damay ragal kay élection chef de quartier boo amee kay ma bañ ko cee xalaat mu dem ci parce que bu ci demee tamit yàlla mun naa dim mu ñàkk ko boobaa nag élection chef de maison moom moom loolu yow kenn du la votal say doom lay votal xool ndax li nga doxalee ci kër gi noonu am déet waaye chef de quartier bu mu bu mu hmm, <laughs> ah, naa ne moom wax dëgg. moo a perte. Ah, xoolal perte nga yoof Barthélémy Dias dafa gagné. Aliou Sall nag moom pertul. Hmm. parce que mag mu ñu ko jël léegi yóbbaa ko ambassade Chine. mën na ko jël léegi yóbbu ko ambassade Chine léegi. Ah, wala amee moom liggéey na géejawaay. Ah, ah Aliou Sall moom liggéey na non xam nga man dëkkuma géejawaay xaw ma ndax liggéey na géej rek léegi géejawaay mais perdant bi gën a perte moom mais Aliou Sall nekkul woon candidat pour Dakar géejawaay kese la dañ ko dóor géejawaay mu toog jàpp ñaamburam mais ki nga xam ne candidat la woon ci koñam Yoff ak ville de Dakar ñu dóor la yoof dóor la Dakar ah yaay perte yaa perte. nga nekk ministre de la santé. waa kay mu ñett responsabilité yoo xam ne dafa metti nag wax dëgg yàlla kenn yéene ko kenn yéene woo ko mais dafa yéex a communiquer surtout moi j'ai pas aimé le fait que ñu toog muy saaf ay beñe saafum beñe boobu nga xam ne dañ ko wane muy saaf gerte war ak beñe loolu mënoon naa ñàkk parce que da nga yéex saaf waaw bi di lu mu tàngee saafoo da nga bàyyi bu fi nga xam ne ni gars yi soxla ñu beñe nga beñal leen